wallaahi dafay jeex ma ne lu lekk yi neex neex lu misu yi neex neex lu ginaar yi neex neex wallaahi dañuy dee dañ ko fi bàyyi dañ ko fi bàyyi dañ ko fi bàyyi dañ ko fi bàyyi Sénégal ñàkk na nit ku baax tey làqoon na dây đem cô bạc đây đây gan سيدا زينب دمنا كويكو باقتي جوينا Senegal dây nyakna Niko đem lakuna Seyda cô bạc đây baaqtay joyna yàlla mooy def lu ko neex te du xool neex lu mu doon ak lu mu neex su koy neex loola di jeex mooy ki bind dund bind dee ngir di nattu nin fi dundee nan ko waaj xam ngeen ni du jaas ku fi dundu dee lu fi bàyyiwul sun yoonen mi fi gën du fi bàyyi kenn kii dul dee mooy kii fi mën mooy boroom kun fayakun bạc tay dội nở mỗi kỳ dân tay xưa núi ai anh lực mình nhau dân bay để đu giá xuân đu đu giá chủ bị dil yêu xa mong hoài mỗi cô bạc yêu đất cô lòn phụ mù ký xưa moom la jël def ko si ak gàtt fan ci atam gudd fan lool ci jëfam fanweer ak juróom ñett tam nga liggéey li am nga ndam Sénégal day ñàkk na jooy na ay waxam yi mu mujj wax waxi dee rek la ca wax déglul tey na la ko wax ngir nga xam li mu ca wax di xamul ke ya fi raw muy ku mag ba mui ku đau, jullit mbaa ye far bu bew dee dees na la caw adduna ngi bëgg jeex ñun ñu foog ni dundu gi du jeex tax ñu dëkke toog ni reta xëy de ñëw ne saraax Sénégal day ñàkk nit ku baax day làkku na nay trôi nở limo đó non ấy và khâm yimu mujja wakfu chi dun dang yalla bur nang ko yaram samu nyi mu fi joto am jamu len yalla borom bala mo jal limu mo nan ko ñaan juk deug دم محمد نم صلوا يا أهل الكمال تيونن باهي الجمال تدينا رب الجلال فنجم خير المآل maa ngi jaale Samba Sarr di jaale sunu maam Khady Sanokho di jaale waa kër Alquran